dal leen ak jàmm seen seen bii di seen njëriñ bi kii di Ousseynou Ly bokk ci leaderu parti bii di Pastef yëkkati na ay kàddu daal di xamal sénégalais yi que ne depuis bañ commencé processus électoral bi ci réew mi di Sénégal nguur gi moom fi amal ay njuuj njaaj te loolee luy sababam moom mooy ñu daal di fexe ba ñu bëri ñu bokk ci parti bii di Pastef wala ñu bokk ci opposition bi ñàkk espoir ba ñu dem voté ci jouru élection yi ci réew mi di Sénégal bu ko defee. Militants ou waa parti au pouvoir daal di dem voter ci bés boobee té né li ni mel mën naa sabab waa nguuru réewu Sénégal daal di gagné élection présidentielle 2024 ni Djom. quatre ñu jëm ne ñaari mbir warna sabab kullu sénégalais dem voter ci élection présidentielle 2024 ni Djom. ñu jëm. parce que pouvoir moy def nonou pouvoir suy dem ci ay jonganté té wóolul bopam su weesoo éliminer candidat limuy muy moy mooy duteloo nit ñi pour ñu abstenir mm-hmm. su ko défé mom électorat am day dem voté. il passe donc ñun nag ñoo leen warul yombal yooyu li booy yi di wax nañ ci ànd ak dëgër bopp gu mat sëkk dërkiis lu ñu àndi rek nañ ko encaisser absorber ko rek continuer parce que pour deux raisons nous devons le faire parce que 2024 doit être le point de départ ci beneen Sénégal bu ñuy dugg mais nu devons le faire aussi pour not leader parce que mu ngi ci kaso bi te ñun ñoo ko fa war a génne bu weesoo moom suñu frère ak sœur yi nga xam ni dañ leen téye ci kaso bi. kon ñoo ko déggandoo buñ sukkandikoo ci kii di Ousseynou li ñaari mbir war naa tax ñu daal di xar suñuy tànk tubéy ñu ñëpp daal di dem voté ci élection présidentielle 2024 yi ñu jëm. mais bu si jiitu moom mooy que ne sénégalais yëpp dañoo bëgg rupture daal di changé régime yi fi jote jaar yëpp waaye beneen bi moom mooy que ne buñ buggee génnee détenu politique yi ak kii di président Ousmane Sonko. faaw ñu daal di jaayante daal di fi jëlee régime bu fi nekk ndax ñooñee ñoom ñoo leen ci kaso bi. kàddu yi ni mel la kii di Ousseynou Ly bokk si leaderu parti bii di Pastef yi daal di koy jëmale si lu war a nekk taxawaayu patriote yi ci élection présidentielle 2024 yi ñu jëm.